pour tatagal ko wan ko ni ko vraiment Noto et là ñu ngi lay soyez la bienvenue. waaw xam nga loolu moom bi ñu tey ñu ngi jeexal yeewi nit ñi ci 22 heures parce que ku fi nekk depuis 3 heures doo def lu dul da ngay naan rek heure lekk jot mënoo lekk te xamoo tamit ban heure ngay yeewi ku pour yegg sa kër parce que ki ñuy xaar yàlla moo dogal programme moom chargé ki ñuy xaar fa ñu koy dégg xam nañu bu baax ne balay yegg si eh, dina guddi lool te nag eh, ku xam noto ni mu mel xam ne dëkku mbay la te nit ñi xamuñu lu dul xëy dem tool donc kon bu ñu gënee téye nit ñi ba ay deux heures wala boog ba minuit rek dañ leen téyel dañ leen ameel ax bu rëy rëy loolu moo tax ñu ni nañu yeewi nit ñi li des ci délégation bi ñu des fi xaar mu ñëwee mën na saafante ak mag ñi ñu ngi sant bu baax di wax ne euh, li tax ñuy teeru Amadou Ba muy mooy premier ministre li tax ñuy teeru Amadou Ba dafa jóg pour def ce qu'on appelle tournée économique Amadou Ba ba mu noonu tey man su fekkee ne sunu borom dafa dogal tey ma nekk buntub noto kuy ñëw ci noto yaakaar naa ne li ma war mooy ma teeru ko tatagal ko sargal ko ci dugg gi dugg ci biir Notto Gu Diama loolu mooy li nga xam ne moom moo war a am bu dul bu loolu amul wax dëgg yàlla ku ko dégg sax dégg ma sànni xeer donc kon nag euh, tey euh, dama bokk ci état bokk ci li doxal état donc kon nag lu jóge ci état bu dee ñëw dina jaar ci bunt bi kon kenn yeyul ci teeru Amadou Ba ku dul man maa war a jiitu ci teeru ko waaw xam nga ku xam Notto nag ni mu mel euh, ak nit ñi damay wax toujours ni ñu ñu bëggee ak ni ñu bëggee transformer commune bu Notto Diomaw nga gis ni tey teeru bi du ñun dong ñun la ak waa Morolan parce que su ma mag Yves Lamine si su woon donc kon mbir mi su fekkoon ni teel nañ ko yëg dina jéggi dayoo waaye kon nag yéex ko yëg ak euh, ni programme état xate démb ci guddi si la ñuy soog a jàkk déggante ak protocole bu primature si la ñuy soog a xam ne ay la yeween ah kay suñu neexee dina fi jaar suñu naqee dina fi jaar ndax bokk na ci programme bi ba pare loolu moo tax it aussi ñu sañ a wax mag ñi li muy guddi guddi guddi guddi ñu la ñu yëglente ba ñu mën a jóg mën a ñëw ci programme bi waaye xam nga ne bu baax ku xam Maguette mbay

kon nag ñi nga xam ne ñoo jàpp ci di jal wala bokk di sot ndax lu ñu sotoo rek bu yàggalee bu yàggee ñu dànk xam nga bu baax ni xalpulaar nga nag lu mu rëy rëy rëy ak lu mu soxor soxor soxor su ko mbooloo téyee rek dañ koy daan kon nag loolu moo ak booloo yàlla moo ni nañu jàpp ci génn buum jublu fan mooy jublu ci di defar waaye yàlla bëggul ñu jàpp ci génn bu mu jublu ci di yàq donc kon nag yàlla ñu yàlla xiir ci defar kon mbooloo mi wuy si yëpp li am mooy ñoom dara ñi ñeeru leen du jëmm du kenn lu dul jóg rek pour defar commune bu Notto Gouye Diama kon nag ñu ngi leen di jaa jaajëfal suma secret ci politique mooy yëg ni nit ñi maay seen mbindaan yëg ni nit ñi maay ki war jiitu ci li leen jox li ñu am yene pour def ko xam nga mindan nak mom boko nekké da ngay don jam da ngay jamu soxlaw askan wi donc kon ci lolu moy suñu secret lenn nekul suñu secret yalla mo ni ki gën ci nit ñi moy ki ëppal nit ñi njariñ te pour nga am njariñ ci nit ñi fokk nga nangul nit ñi ni nu mel moy jox rek fexé so de am yene pour jappalé askan bi yene bobu dong lañu am waaye nag nit ñi bu ñu amee yéene jëm ci ñoom ñu am yéene delloo ñu ko loolu rek secret amu fi donc li yàlla wax ci la ñuy jéem a nekk te duñu ko moy ndem soob na yàlla kon nag yàlla nañu yàlla defal ndam ci loolu. waaw xam nga tey Sénégal yaatu na waaye sunu borom bëgg na lépp lu nit jóg di ko yëkki ci kàddoom mu doon loo xam ne lu mu namm la. bi ñuy jóg di laaj baatu commune bu Notto Gouye Diama sunu yéene moo doon ñu fexe parce que gisoon nañ ne dafa bokkoon ci suñu promesse campagne électorale bu 2014 ñu réitéré waat ko indiwaat ko ci 2024 2022 mooy bus scolaire yi parce que nit ku nekk li nga yëg rek saa yu wax jotee moom ngay wax li nga yëg euh, saa yu jëf jotee moom ngay jëf donc kon ñun li ñu bëggoon mooy incha allah bu ànd ak dogalu borom bi wut waxuma ay bus de waxuma ñaari bus déedéet wut ay bus créer ay ligne li bëgg ci commune bu Notto Gouye Diama mooy fexe comme commune bu di commune yi nga xam ne ñoo nekk ci biti parce que nag boo génnee mbir bitib Sénégal comme par nga demoon fu mel ni tey euh, États-Unis da ngay gis tey wala nga dem tamit euh, turki rek da ngay gis bu baax ne euh, maire yi ñoom ñooy fexe ba doxal seen commune su fekkoon ne maire yi bu nekk dafa doxal commune am ci bus scolaire ci BRT ci TER donte sax tur bi rëy na Sénégal moo koy doxal waaye bu ñu fexoon ba kenn ku nekk di doxal sa sa commune ci li nga xam ne mooy lu digg doomu dañu ngay gis Sénégal day daal di jàpp. ñun nak fofu lañu jëm ñun liñu bëgg moy politique boo xamante ne si euh, ñun dañuy mëna transporter suñu élèves dañu am ay bus scolaire liñu bëgg moy tay dañu am ay ben tasseuse ay benn tasseuse yoo xamante ne suñu mbalit ñun ñokay koy jëlal suñu bop diko yobbu diko transformer suñu bop liñu bëgg moy tay ci suñu commune moy euh ñu am ce qu'on appelle tay ay hôtel communautaire liñu bëgg ci suñu commune loolu la mooy yu yaatu yooyu noonu yi nga xamante ne si tey eh, commune bi dana dem ba créer emploi ça veut dire que am yëfi boppam am ay yëfi boppam jël ci ay doomam ñuy liggéey commune bi di amat recet loolu mooy sunu yéene ci commune bi Notto Gouye eh, Diama xanaa di leen sant bu baax yéen presque locale bi parce que yëg nañ bu baax ne eh, tey ci diggante kayaar Morolan ci Pambal ci Noto Goudiamo yéen ngi def liggéey bu mucc ayib